yëkkati na xam ngeen doggali tribune yéen kaay naan maan yéen sénégalais ya sonnoon dey gouvernement gu yees gii ñu leen indil lenn daal la nar ak yéen mooy doggali leen fayal laaxu yoor yoor yéen kaay naan koon déet état major la ngir waajal ay élection réew mi quotidien naan koon lañ waxoon la noon ya bëggoon dalu la waaye dalul bi le gouvernement lanu yaakaaroon ñoom askan wi ci ne coppite day am day amul fayal laaxu réew mi quotidien naan maan miracle amul même tête même quête ña fi newoon ñoo fi newaat rek la ñu wut si soppeekuwul tuuti coppite daal toq tuuti coppite moom ci gouvernement gu bees gi Thérèse Faye moom dugg na te xam nga Thérèse moom lu mu am liberté ko ko may Thérèse Faye lu mu am constance ak yàgg ak président Macky Sall waaye tam mësa moom boppam moom Thérèse moo ko may laas naan man ma Cissé ak Omar Youm duggaat nan maître Antoine Mbengue ka daan layal nguurug Sénégal mooy surprise bi ma Mamadou Talla Sophie Gladima ñaar ñoo xam ne dañoo jege lool président de la République Macky Sall dàq nañ leen tribune yéene ma déet Mamadou Talla kay dañ nag ñu wàññi ay garaatam Oulimata Sarr ak Sophie Gladima moom dàq fa yàllaaxu fanweer ak juróom-ñeent ci ministre ñoo nekk ci gouvernement de mission bi tribune yéen a kaay naan maan boo yàkkamtiwul ma limal la l'info yéen a kaay naan maan ñu dig ñu gouvernement ñun sénégalais ay fan ñu ne xojj taxaw di xaar moom Sall wannu na gouvernement moom président ki Sall jël la fi nekkoon taqrib mu ne da koy balewaat defaraat jox ñu ko ñun sénégalais Amadou Ba naan man la gouvernement de mission la ak bu combat koo xam ne dina concentré wu ci li nga xam ne mooy orientation majeure yi de chaise musicale kay la ñi fi nekkoon ngeen fi tegaat soppi leen ay département l'info naan kon maître Omar yu moom lu waayoo fay na Thérèse Faye Diouf ni ki noonu def nañ ko ministre Biram fay moom tamit ministre Momar Samb yees ministre Modou Diagne Fada duggaat ci gouvernement gi yéen bi naan man dara Thierno loo ci boppam la ñu bëgg Modou Diagne Fada kar ko ndax Thierno Lo jege ñaale bun Abdallah Jonn la ca Daaru Musti Daouda Dia moom ñu fal ko ngir électorat ba nekk ca Fuuta ñu teg ca loxo ndax moment Lat Diop ñu dénk ko géejawaay yéene kaay bi naan maan président Macky Sall la mu bëggoon ci des ci nguur gii Sall baw ko vox populi naan maan gouvernement bu combat la Amadou Ba wootee ab équipe ministérielle boo xam ne politique dong la ñu taaye ko nag sur mesure ku ci nekk nag war a xam sax mission ci élection présidentielle bi ci xolu gouvernement gi fi mu ne juróom ci juriste ne ci Antoine Diome Ismaïla Madior Fall maître Sidiki Kaba Aïssata Sall ak maître Antoine Mbeng vox populi naan maan Serigne Mbaye Thiam ak Mariama Sarr ku yàgg ci nguur ñoom ngay jàppale l'enquête naan maan maayen baay dox de moom président Macky Sall ma ne la boobu bay tëgg Sall jël na Antoine su Diome ak Ismaïla Madior Fall làq leen ne leen daw leen xeeri kaay leen ma nguufaan seen kaw daal di jël Sidiki Kaba ay Aïssata Tall Sall daal di ba dox sénégalais yi ne leen lu leen neex wax leen vox populi naan maan Sidiki Kaba lu ne dégg na ko l'enquête naan kon ma yëg li Amadou moom ma ngay tabax nguuram Walf Quotidien naan kon du remaniement coppet ci bii teg ci bee bee ko rajax la ma ne la daanaka li dogi jeexul ci réewum Sénégal Sall ngi teg ay pion nice l'observateur naan kon président Macky Sall di sampal garaat ña nga xam ne ñoo fidèle ci politique di ko xeexal bés bu yàlla sàkk diggante Fatick Ziguinchor Mbour ak Matam Sall daal na koy renforcer ngir waajal élection yi Le Soleil naan kon juróom benn yees dugg nañ ñett génn nañ ñaar dellusiwaat nañ ci gouvernement gi beneen ministre délégué dolli ku na ci li fi nekkoon Le Témoin naan kon équipe Amadou Ba deux formé nañ ko ni ki démb gouvernement goo xam ne mission am lenn dong la mooy élection présidentielle bii mu fexe Amadou Ba am ndam ngir nag daal di contrer waa Yewwi Wi las yéen i kaay mel ni ku naan leen cim suñu xaar yàgg gi joxu leen lu dul ab tàngal ceeb Macky Mariama Sarr le grand amour Daouda Dia président Macky Sall fayee ko bor bi kamagam Harouna Dia lebal Mimi Touré am teg njàqare Thérèse Faye Pape Malick Ndour Victorine Ndeye ak Biram Faye ñu naan leen kaay leen woo leen ndaw yi nag ñu ñëw ci yéen Matar Cissé yéen i bi naan man ka waroon dem pale kay na fa l'exclusive yéen i kaay naan man gouvernement ga judd na waaye mat ga metti na làmbaatu ga ak tëñ-tëñal ga bari lool ñu mel ni ñu gëlëmal sénégalais yi ba jékki saay ne leen naxee mbaay lii du gouvernement gu a réaménagement la lii ko quotidien naan leen jaru ko woon de neexul ba neexul waaye jéggaloon nañ leen ko Amadou Ba ci 24 heures yéene kaay naan gouvernement gu yees la ñu war a soobu nag ci urgence yi ci wàllu koom waaye tam ci wàllu dundinu askan wi daar daar turbin yéene kaay naan kon mukk nit boo ko diggee ndékki joxoo ko boo ko joxee añ bu la gëmee naan ni nakaani budget 2024 bi ngeen ni yéen yokku ngeen ko ay milliards di tawee fu ne askan wi mani la ndax mën ngeen soppi li ñuy dundee ndax fi mu ne nag mani la coonoog sénégalais yi fukket ak ñaar ak ñun ak yéen benn coppite amu ca tey jii xëy na coppite mën na am daar daar sénégalais yi bu ñu leen gëmee nan xooli seen bopp vox populi naan man maître Sidiki Kaba moom xeer yaa ngi koy dale fu ne Moussa Taye ma nga naan directoire de campagne Amadou Bala te wóoluwunu ñun ci boppam opposition bi Sidiki Kaba Mimi Touré naan Sidiki Kaba day palam gii bu yeboo opposition bi seen xel tàmbali cee teey Mary Teuw Niane naan dañoo bëgg lëndëmal Abdourahmane Diouf naan kon Sidi na woon fa woon tribune yéen kaay naan man yeewi askan wi Habib Sy bàyyi na Tidiane yum léegi mooy njiit lu yees li laas waxtu woow tey Ousmane Sonko daañu ko lett baa ñu firi ko ay awokaam daal dina ñuy dem te sigi coor ngir xool nag dëgg-dëgg Sonko tey dañu koo dàq définitivement ci liste électorale wala it Ousmane Sonko mën na doon candidat tribune yéen kaay naan man ndeke yoo Sénégal naan sàngara dëgg lañ dañu naan piir baay màndi mandi te réew mi dañuy mandi consommateur bu mag mooy suñum réew ci denduk Afrique rek ñeent fukk ak ñeenteelu place bi Sénégal moo ko jël laas yéen kaay ne ko xaddu yàlla sàkk nee ñu fanweer ak ñetti million liitaru sàngara daañu ko naan ci réewum Sénégal soo yéen kaay mel ni ku naan autorité yi waxleen leen ñuy jeex barsa wala barzaq yi day suñu doom yaa ngi cay des gaal goo xam ne mi ngi bàyyeekoo fii ci Cambérène ñaar fukki fan ak juróom ci weeru sàttumbar daal dinay teer ca dax la gaal goo xam ne ba muy départ juróom ñaar fukk ak juróom ñett ci doomu aadama ñoo ca nekkoon ba muy teer fanweer ak ñeent ñoo ca des te fanweer ak ñeent ya ñaar ya moom daal dina ñuy mujjee faatu ca l'hôpital ba ndax sonn saaliw ndiir bokkoon ca gaal ga xam le ni dañoo dem baamatuñu lu ñu lekk ñenn ñu nekkoon ca gaal ga tàmbali tàqalikook seeni sago di daanu sa géej ga am na kenn koo xam ne moom dafa ne day dem ca boutique ba jënd cigarette tëb ca ndox ma faatu seeku jakkati ne lu toll ci fanweer ci ay njabootam bàyyeekoo ci màkka kuli bantang faatu nan ci gaal gi am na geneenu gaal goo xam ne suux na kayaar la bàyyeekoo woon ña faatu bari na lool tribune yéene kaay naan maan amoon na fi tey la juróom ñetteelu fan bu ñuy fàttalikoo directrice bu dee média ba làqu moom moomi sekk ma teel a réer tribune yéene kaay naan kon demal ñu fay la aljana yow mi fideloon te boole woo dara ki wax demal Eli Moro naan maa ngi ñaan moom soxna moomi sekk